bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxbihi wa xayri xadimihi rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di santaat yàlla bu baax ci bi nu ñëwaatee ci bërëb bu sell bi di ndokkeel bu baax itam sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla defal teraangay ñuy liggéeyal xadra bi ak rawda Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu bi muy waa muqaddamatul xidma ñu ñaan yàlla gën leen a defal tawféex gën leen a defal kattan ci liggéey bi ba fañ ko bëgg a àggale fépp ñu mën ko fa àggale di siyaar sunu kilifa yi ci jotaay bi yépp ñu sàkk woon ci nun nu indi bunt bi sëriñ bi indi ca masaalikul jinaan te muy wax ci ni ñuy dundale waxtu ku ne xam na ne waxtu day lu am solo ci doomu aadama bala noo dugg ci biir bunt bi ak yi ñuy dundale waxtu faw ñu njëkk a taxaw ci solo si waxtu xam ngeen ne waxtu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la itam ndax sunu borom ci boppam da ko jox yitte gis nañ ci alquranul karim mu wax doomu aadama yi ne leen dama leen defal ay xéewal bokk na ci xéewal yooyee waxtu ak dund gii ngeen di dund loolu xéewal la ko suñu borom jàppe gum nu defal te loolu ci bërëb yu wuute wax na ca ne awalam nu amnalkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar ak lu mel ne li mu wax ne wa saxara lakum shamsa wal qamara daa'ibayn wa saxara lakum alleyla wannahaara wa aateykum min kulli ma saaltumuhu wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha waane suñu boroom dañuy wan xéewal yi mu nu defal te la ci gën a kawe mooy waxtu yi mu nu jox nii ak dund gi nga xam ne moom lañuy dund ci kaw suuf suñu boroom àgg na ci giñ ci ay xaaj ci waxtu yenn ti waxtu yoo xam ne da caa giñ tudd ko ci biir alquranul karim wal asr inna al insaana la fi xusr wal leyli ida yaxshe wan naheeri ida tajalle wad duxe wal leyli ida saje wal fajri wa layaalin asr wal shafi wal watr wal leyli ida yasr xaaji guddi yëpp ak waxtu yëpp mën nañ ne dugg na ci baat yooyu nga xam ne suñu borom da ko tudd ngir duñu wan solo si nga xam ne moo ci ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wax nanu ne yowmal qiyaam bu ñu fa demee lañu lay njëkk a laaj mbiri lu aju ci waxtu lay doon lan tazuula qadama abdin yowmal qiyaama xata yusala an an arbai xisaalin an umrihi fima af fima afnaahu wa an shabaabihi fima abdaahu dañ laaj sa dund gi nan nga ko jeexale wax waxambaane gi nga nekkoon am kàttan nekk sa digg doole itam loolu it ci lan nga ko jàllalee loolu lañ lay njëkk a laaj lu suñu borom wax ne qaala kam labistum fi l ardi adada sinin qaalu labisna yawman aw baada yawm fas'al al aaddiina qaala in labistumu illa qalila law annakum kuntum taalamuuna afa xasibtumu annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjacuuna fa tacaala allahu almaliku alxaq la ilaha illa huwa rabbul arshi alkarim suñu borom bindunu ngir fo wala ngir yàq waxtu wala ngir caaxaan danoo bindu jox nu ab diir boo xam dañ ko fa war a ne diir boobee ñu natt ko muy ay minute ak i bis yoo xam ni bu ci yàlla rek dootu ñëwati gis nañ lislaam sax mboolem jaamu yàlla yépp da ko tënk ci ay waxtu julli xam nga dafa am ay waxtu moom koor dafa am waxtu ak jamono juñ koy def xaj màkka noonu asaka noonu léppi jaamu yàlla yépp rek lu ci ne ba ci julli sax dafa am ñaari waxtu muxtaar ak daruri waxtu ñu ko gën a taamu ak waxtu woo xam ni def nga ko rek waaye nag bu jàllee moom defoo ko ci waxtu moom da ngay fay moom moo tax waxtu lu mat a bàyyi xel la ndax nit ki alalam ji gën a rëy mooy waxtu alxasanul basri danaa wax ne xamal ne yow ay fan nga rek yu dajaloo bis bu dem rek xamal ne am na lu dem ci yow te waxtu li ci ne mooy dafa gaaw a jàll dafa gaaw a jeex gaaw a jàll am na ci nit ñu baax ñi ku mas a dab jenn waa ju baax di ko laaj ay laaj ne ko dafa am lu mën a bëgg a laaj tàmbalee wax mu ne ko mbaa mën nga téye jant bi xamal ko ne ko jant bi moom du nu xaar yooyu ba nga gaawtu te itam waxtu li ci ne mooy bu xasee dem duutu delsi ana bis bii dem ni buñ nee la talaata daa delsi beneen talaata ñëw waaye bokkut ak ba weesu moom ba weesu moom dem na moom moo tax sayidna abu bakrin siddiq daa wax ne na nga xam ne bëccëg bi am na xàq joo xam ni boo ko deful ba mu jàll ca ca bëccëg ba xamal ne guddi ga mën fa am jeneen xàq yi boppam mënoo ko caa fay ndax boo ko ca fayee xàq ja ja nga waroon ja la waroon ci guddi ga rawaat na la maanaam jamono ju ne dafa am xàq yi boppam yoo xam ni ak jëf joo ca war a jëf moo tax saxaaba ya ak gaañu njëkk ña fonkoon waxtu alxasanul basri yi nga xam ne fekk na ñenn ci saxaaba yi dadaa wax ne am na gaa yu ma dajal jamono de yoo xam ni yéen ni ngeen xëre ci seeni alal ni ngeen nayee ci seen alal ji ñoom noonu lañ nayee woon ci seen waxtu wal waxtu anfasu ma uniita bi xifdihi wa arahu ashala ma alayka yadiu ku ne xam nag waxtu moom ñi ngi koy sànq bu baax a baax léeg-léeg nga jàllale ko ci topp ay xibaar yoo xam ne benn amul la njariñ wala seetaan ay teleeg dugg ci internet ak ak wax joo xam ne amul la njariñ wala siyaaraat yoo xam ne mënoon naa ñàkk wala ay werante yoo xam ne yu mënoon a ñàkk la wala sax am po léeg-léeg yooyu yëpp yu yàq waxtu la yoo xam ni nit ñi danañ ci yàq seen waxtu te duñ ko yëg sax nag léeg-léeg waaye lii sabab nga yàq sa waxtu léeg-léeg boo ko seetloo mën a nekk ngëm gu doye di nit ki bu pas-pasam xawee woyof yàq waxtoom da ko yomb bu xamul itam solo si ne ci waxtu dëgg-dëgg yàq yàq waxtu da ko yomb bu amul yitte ju kawe itam ci kaw suuf am na ñoo xam ni dañu am yitte ci ay mbir yoo xam ne dañ ko teg seen kanam ne faw ñu def ko ñi am yitte yu kawe yooyu nag ñooñu duñ yàq seen waxtu mukk ak itam bokk na ci lii maye lii sabab fonk waxtu mooy am royuwaay nit ki bu amul kenn ku muy roy amul kilifa gu muy roy ci jëfam ak i waxam yàq waxtu mën na ko yomb ak ñàkk tërbiya ruuxiya ak tërbiya jasadiya wa badaniya mooy gone nañ koy yare ca njëlbeen nga mën na koo jural bu màggate ak bu magee waxtoom yépp mu di ko sànq ci lu amul njariñ ak ay aadaat itam yoo xam ni léeg-léeg mu sabab yàq waxtu ñoo xam ni dañuy am aada yoo xam ni ñoom ci moom buñ ko seetloo dañ xam ne aada ji mënoon naa ñàkk wala mënoon naa gën a gàtt jàpp ne war ngaa xewlu ci bis bi te boo xewloo war ngaa naan ataaya te faaw nga def ñetti baraada masalan loolu yu sew sewaat la yoo xam ne aada yoo xam ne mën nga koo aada wa te fekk mënoon na gën a gàttal sa waxtu mënoon na mën nga ca am loo ca taw loo ca loo ca denc ci waxtu wi ca la muy jël ak ñàkk nose ak ñàkk xam ni ngay nosee waxtu wi ak itam lu ne nga bëgg ko defal sa bopp yooyu dana sabab yàq waxtu léeg-léeg nag nit ki fonk waxtoom nay ca lool waaye keneen nag koy yàqal moo xam da koy woo téléphone di wax ci biir yu fasanti ko te xëy na solo sa demewut noonu wala ay ziyaaraat wala yu nu demee wala sax léeg-léeg ci mbedd mi xataa yu yoon wi wala yooyu yëpp day sabab yàqu waxtu waaye nag nit ki nga xam ne bëgg naa dundal waxtam daa war a teewlu ginnaaw bi mu amee pas-pasu lislaam bu dëgër daa war a teewlu ne sunu borom mi ngi koy bàyyi xel di bàyyi xel di ko gis ci léppam dara sa dara umpul sunu borom foo ne rek mi ngi fa nekk yow looy def it mi ngi koy gis loolu ku koy bàyyi xel doo tara yàq waxtu jéem a xam itam solo si waxtu dana tax nga mën a fexe ba doo nga mën a lijjanti ba am ca loo xam ni doo ko yàq ak yitte ju kawe itam ak am itam ay jubluwaay yu leer ci sa kanam yoo teg bët te ñi ngay àndal it ñu bañ a nekk ñoo xam ne dañ lay jëmee ci yàq waxtu ak yi ni demee loolu ak di ko ñaan itam buñ gisee ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidna Ali ibnu Abi Talib dafa daa wax ne yonente bi bu masaa ñëw ci këram dafay xaaj waxtoom ñetti xaaj am na ca xaaj boo xam ne da ko jox suñu boroom moom jaamu yàlla la cee def am ca xaaj boo xam ni ak njabootam la ko jox am ca xaaj boo xam ne boppam la ko la la ko jox waaye bi mu jox boppam moom la bokk ak jullit ñi nga xam ne ñi koy seet si ak ñi ko bëgg a gis ñëpp ca la leen di gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam daana soññee ci fonk waxtu ndax wax na ne ñaari xéewale ngi yoo xam ni jaam bi am na ko te bala moo xam njariñ li da koo ñàkk ak wér ak ak jot moo tax mu daa digle ne na nga fonk juróom yii balaa juróom ya ca des a agsi boo tollee ci waxambaane na nga farlu balaa màggata ñëw sa kàttan di dem boo tolloo ci ak wér na nga farlu ci lu baax balaa wéradee ñëw boo amee koom na nga farlu ci jëf ci lu baax balaa ñàkk a ñëw boo amee jot na nga farlu ci def ca lu baax balaa jota dee ñëw boo dee dund itam na nga farlu ci def ci lu baax balaa génn àddunay ñëw ndax suñu borom danoo benn ngir nu jaamu ko moo tax ki nga xam ne dafa réere waxtu moom fam koy xamee dëgg dëgg ci ñaari bërëb lay doon mooy bu demee ba feebar feebar boo xam ne wóor na ko ni dootu jugati nga xam ne day dem rek ku dem mu dem ku demul mu dem foofu moom waa dana xam solo si waxtu yi nga xam ne ak minute yi nga xam ne moom la daa jàllale moom boo la koy xam dëgg dëgg moom ndax suñu borom nettali ne nettali lu ñenn ci ñooñu wax ne rabbana axirna ila ajalin qaribin nujib da'watak rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ak bis bu ñu demee ba yowmal qiyaam ñi daa fonk seeni waxtu di ci di ko dundal bu ñu leen fayee seeni jëf ñépp teg ca bët boobaa itam ñépp danañ xam solo si waxtu foofe itam danañ fa gis ñoo xam ne suñ boroom nee nañu dañ rëccu wax ne rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun kon waxtu solo si foo ko takk rek weesu na ko sëriñ bu mag bi dalaa wax ne àdduna dafa gàtt te li muy gàtt gàtt dundug doomu aadama moo ko gën a gàtt te dundug doomu aadama li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy tëlee ku gën a gàtt wax jooju nag xikma la bu rëy bu am solo bu bu làmboo njariñ yu baree baree bari fi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa wax ne dundu xeet wi li ca gën a digg doomu juróom benn fukkaat la jëm juróom-ñaar fukk juróom benn fukkaat nag tey jàppal ne ba keroog ngay am ñaar fukk yow doo génne sa bopp ci ngone moom da nga jàpp ne gone nga ba léegi fi ne ki nga xam dafa am doom doom ja am ñaar fukkaat fi ne ba léegi gone la koy jàppe nga xam ne ñeent fukkaat yi ca kaw moom ngay jàppe sa bopp mag tàmbalee tàmbalee jëf am na ihsaiyaat yoo xam ni borom xam-xam yi dañ koy def ci misaal boo amee juróom benn fukki at jàppal ne toog di xéewlu jël na ci ñaari at moom yoo xam ni yoo xam ni toog xéewlu rek nga ko def moom ndax bis bi bu fekkee ne li nga ciy xéewlu ñetti waxtu yi ngay xéewlu yépp dana la jëlal waxtu xamal ne ay bis gi kon juróom-ñaari waxtu dana ko jël weer wi dana jël ñaar fukki waxtu ak juróom-ñett at mi dana jël 336 heures mu ñetti téeméeri heure ak fanweer ak juróom-benn loolu mooy boo amee juróom-benn fukki at am nga ñaari at yoo xam ni xéwlu kese ci nga ko def moom. loolu nag boo ci boolee juróom-benn at ya nga njëkk am nga xam ne moom defoo dara moom booba gone nga guy foo ak taxawal nga dolli ci bu fekkee da ngaa jàng jaar ci jaaruwaay yi ñu xam. bis bu ne nga def ca daara ji juróom benni waxtu xamal ne am nga ñeenti at sa dund yoo xam ne jàng kese nga doon def bu fekkee ne bis bi da nga ci nelaw juróom-ñetti waxtu xamal ne am na ñaar fukki at sa dund boo amee juróom benn fukki at xamal ne am na ñaar fukki at sa dund yoo xam ne nelaw rek nga ko def moom bu fekkee ne fa ngay liggéeyee da nga fa def juróom-ñetti waxtu ci bis bi te mooy ñëpp ci li ñi ñiy liggéey loolu la ñuy liggéey xamal ne yow gën jaaneew fukki at ak juróom benn moom def nga ko ci liggéey kese moom nga xam ne toog di bind ak kii yooyu rek ca nga ko def moom bu fekkee da nga seetaan télé ci bis bi ñaari benn waxtu xamal ne boo amee juróom benn fukki at am nga ñaari at yoo xam ni seetaan télé rek nga ko def moom bu fekkee da nga dugg ci internet ak jumtukaay yii nii benn waxtu ci bis bi xamal ne boo amee juróom benn fukki at am na ñaari wax ñaari at yoo xam ne moom ci yooyu rek nga ko def moom whatsapp ak wala jégal maa ngi jégalu sax bare ci tudd ko ci bërë xadra bu sell mi mi nga bu fekkee da nga siyaare say say xarit ak doxu mbokk ak dem ca marché ba jënd yenn bagage yeeg yu demee noonu bu fekkee loolu da moom boo ko séddalee bis bu ne da nga ko def xaaju waxtu muy muy fanweeri minute jàppal ne def nga ci at boo amee juróom benn fukki at téléphone nag doog a ñëw bu fekkee da nga ci def fanweeri minute ci bis bi xamal ne boo amee juróom benn fukki at am na at moo xam ne ci wuyu ci woote téléphone rek ci nga ko def léegi nag booy dem nag ak dikk nag xataay yoon weeg yooyu doo ko dikk loolu bu fekkee ne da nga ci def fanweeri minute ci bis bi wala waxtu jàppal ne kon am nga ñaari at wala benn at ci sag dund boo xam ne ci loolu nga ko def nga xam ne fi ne moom juróom fukki at ak juróom-ñett moom fi ne bu mu jeex na ci yi ma wax ni moom nga dese ñaari at yoo xam nag moom mooy bis bi bu fekkee ne da nga da nga li ngay jaamu yàlla dana mat benn waxtu ci bis bi xamal ni kon am na ñaari at yoo xam ne jaamu yàlla ci nga ko def maanaam julli juróom yéeg yi ngay toog di wër rek yooyu noonu su fekkee ne dana mat waxtu ci bis bi xamal ne boo amee juróom benn fukki at am nga ñaari at yoo xam ne ci jaamu yàlla nga ko def léegi nag jaamu yàlla nag yow moo tax yàlla sàkkunu wa ma xalaqtu nu ko suñu borom waxee wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni maanaam yàlla dañu fi indi ngir nu jaamu ko moom yi ñu waxaat yépp ay jumtukaay la war a doon ngir mën a jaamu yàlla léegi nag naka ngay fexe ba yee ñu waxoon yépp nga xam ne yeneen i mbir nga cay def waxtu yooyu nan ngay fexe ba mu nekk ak jaamu yàlla moom la sëñ bi di jàngale ci buntu bii ñuy waaj a dugg fi ne loolu nag mën naa ne man ngaa fexe ba yi ci des ma wax yépp naan ngeeg lekk ak lépp soppiku dig jaamu yàlla loolu moom lanu sëñ bi jàngal ci buntu bii di buntu bi ñuy bi bi jàngale maa tu'ammaru bihi al awqaat faslu maa tu'ammaru bihi fii maa tu'ammaru bihi al awqaat mooy li nga xam ne moom la ñuy dundale waxtu te sëñ bi nim nu ko jàngale nu yomb la mooy aada yi nga fex ba mu wëlbatiku dig jaamu yàlla te loolu yéene moo koy wëlbati ku ne xam ne yéene mooy soppi mbir mooy ruuxuk jëf tey booy dugg ci jàkk ji yéene siyaare ku baax kii fi ne yéene fee julli yéene i'tikaaf di lu mu gàtt-gàtt diggante bi yéene yu baree bari nga yéene ko yépp ngay am xam nga innamal a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa moo tax yéene moo mën a soppi yooyu yépp loolu dañ ciy xamee ne kon adduna lu gàtt la lu gaaw la te yàlla dañ fa indi ngir menn mbir moo xam ni dafa bari yeneen yoo xam ne ñooy xëccoog moom waxtu wi moo tax sëñ bi ci njëlbeenu bunt ba ba mu ko daataa dugg dañoo wax dañoo xamal ne solos waxtu foofa la njëkk a ubbee mooy li mu wax ne wa arghabul ashya'i lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati walaw suwayatan faqat li yacmaluu saalihatan tanfacuhum in qafalu fagtaniman baaqiya umrin qad mada bi geyri taacatin wa lil xeyrin hada dana xamal ne ñi faatu liñ gën a bëgg mooy ñu delsiwaat adduna donte benn saa lay doon donte benn minute lay doon donte benn waxtu lay doon ngir ñu mën fee jëf lu baax te loolu ñépp a koy mébét nag ñiy jëf lu baax danañ mébét te delsi ngir gën a jëf lu lu ëpp lañ doon def ñi doon jëf safa safaan it danañ mébét te delsi ngir bëgg a soppi aw doxiin jëf lu baax te bañ a jëf ab sawaan moo tax sëñ bi wax ne yow mi nga xam ne yaa ngi fi te del demagoo te nun ñi fi ne nii ak waxtu yi jàll nii nañ xam ne noo ngi ci dund gi lii rek nag mooy dund gi waaye bu weesoo jamono yi rek fi ne xamoo ko xamoo fu sa mbir mën ngaa dem suba mën ngaa dem ginnaaw suba ëllëg waxtu ne mën ngaa dem moo tax sëñ bi ne fëxtari man baqiya umrin qad mada li des ci dund gi na nga ko màng da nga ci def yitte ndax ginnaaw la weesu weesu na te la ci ëpp defoo ko ci jaamu yàlla kon li des na nga ko def ci jaamu yàlla bala moo faat te bul sàggan mukk te na nga sàmmoonteeg sa cër yépp di fugloonteeg ñoom ndax xol mi ngi mel ne ak dex goo xam ni la cay tàbbi ci cër yi lay jaare bët bi li muy xool day tàbbi ca xol ba li nopp bi dégg day tàbbi ca xol ba li loxo bi làmb ak a daj day day tàbbi ca day day àgg ca xol ba xol bi liy jaar ci cër yi mooy agsi ci moom bu dee leer ak lu baax xol ba day leer day baax bu dee safaan it safaan ba rek lay mel Sëriñ Tuubaa wax nu ne li ànd kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun a noo gi ngay noyu mooy wurus bi gën a kawe mooy alal ji gën a rëy ci kaw suuf dara wéccu ko nooyi gi nga mën a toog di nooyu nekk sa jàmm ne loolu dara këwu ko ci kaw suuf ne loolu koom la moo xam ne mën nga cee jënd alal ju rëy rëy rëy rëy fi ne koo gis mu am lu rëy yowmal xiyaam xamal ne ci waxtu yii la ko jënde woon Sëriñ Tuubaa daana wax ne lu la waay rawe ëllëg xamal ne ba mu koy am ba mu koy jëf booba yaa ngi ci wetam di nelaw moo tax mu ne noo gi bul ko nooyu mukk ci lu dul lu neex yàlla boo ko nooyoo ci safaanu lu neex yàlla rawatina ak mooy yàlla ne loolu perte la lay jural ëllëg fa daaka xusraanu mubinu fadriya Sëriñ Tuubaa dana koo gàttaloon ci ci ci lu gàtt dara wax ne nun mas naa laaj mag ñeneen ndax xam ngeen luy bitim réew ne leen bitim réew de mooy fii nu ne boobu dañ ko wax ne bitim réew mooy ku génnam réewam dem ci meneen réew nangam mooy leen nuru na ko waaye nag bitim réew dëgg-dëgg mooy fii nu ne kër ga dëgg-dëgg mooy fa la nu jóge woon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un foofe mooy réew ma moo tax suñ bu mag bi moom maanaam bu ñuy wax ki nay ci waxtoom dëgg-dëgg nga xam ne moom waxtoom mus musu cee sédd keneen leneen ku may suñ borom mooy Sëriñ Tuubaa si amul Bamba radiyallahu anhu maanaam jàmm sant yi ñu def ci ci wolof yi rek ana waa kër ga ak foo dëkk ak foo jóge maa ngoon bërëg sàngam loolu wax ne musu koo ndongo am na ko ko nuyu di ko wax ak moom waa ji wax dëkk sàngam dëkk bu ne mu ne maa nga fa woon sëñ bi ne ko man damaa yaakaar ne bu ma leen waxee fu ngeen dégg da ngeen war a wax ne maa ngi ci imaan ak islaam ak ihsaan ak waajibul mu baax waaye di tudd yu kenn xamut am na naar bu ko ne kay fa xaalu ko mu ne ko xaalu naa tarku maa la yaani naa wax na ni am na waaju fa ma sa ñëw ci moom indil ko xaritam boo xam boo xam da ko nuyoo léeg moom ne ko kii de sama xarita mburum làmb la nag fi ne gox bi yëpp mbër yi moom ñoom ñëpp moo leen daaneel sëñ bi ne wëriñ jug bàyyi bàyyi leen fi comme demee ba ci bunt ba joxoñ ko armée ne ko mbër ma daane ñële moom noo def ak ñoom ana xam ne waa ji mi ngi yàq waxtam ci ay bëree yu kenn xamul yow yàlla bindu la ngir bëre moo tax sëñ bi musta ndongu yàq waxtu moom mbooleem ñim yar ñëpp kenn koo xam ne da ciy nekk ci lu amul njariñ amul toog loxoy neen loolu moom moom musu ko ndongu ci jataayam ak ñi keppaaram bunt bi nag bi mu ci daata dugg leeral na nu ñaar yu am solo yu mat a bàyyi xel mooy xam ak jëfe dañu wax ne yooyu dafa wax ne loolu mënta ñàkk da nga xam ne xam ak jëfe ñooy jumtukaay yi nga xam ne ñooy yoon wi nga xam ne ñoo lay yóbbu ci texeek adduna ak alaxira wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal fa fiihi majtahid wa fi tasfiya min kulli afatin wa fi tanqiya da nga fexe ba xam waaye boo xamee na nga fexe ba jëfe te boo jëfee itam na nga fexe ba ba dëggu wéral ak dëggu mooy li nga def nga dëggu ca ci say wax ak ci say jëf te li ngay def it na sell mooy na yàlla kese kese kese tax te itam li ngay jëf it na nga ko teg ci kaw sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi wax ne yooyu yëpp benn mënu ca ñàkk moo tax digle na ci njëlbeenu bi mu daata dugg ci bunt boobu ñu boole ñaar yooyu xam ak jëfe ak sellal ko ndax nee na xam xam moom mooy fondement bi waaye jëf nag bu doonu garab mooy meññet ma maanaam meññetum jëf ma meññetum xam mbokk ci jëf lay juddoo mbir mbir mbir mu ne itam wax nañu ne la ca gën moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay tànn mbir mu ne wax nañu ne am na lu ca gën xam-xam am na yu ca gën jëf am na yu ci gën ba ci jàng alxuraan am na lu ca gën yooyu yëpp anam nga ga ca gën lañ suñ bi wax ne yow boo bëggee dundal sa waxtu loolee ngay njëkk a xam nekk ca xeeti xam-xam yi wax nañu ne xam-xam bi gën a mat a yittewoo mooy tawxiidu rabbina boo ci xamee lu matub yóbbal nga jéem a xam alquranul karim ak li ci yàlla wax teg ca xadiisu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam teg ca attay fiq yi la la ca yitteel yow nga jéem koo xam yooyu yëpp nag boo ko xamee nag su fekkee bëgg nga géeju ci diine ji rek nga doog a jéem a jàngi làkk wi ak yee des waaye yii moom nee na nga ci xam moom ndax yii moo la gën a yitteel bu dee jëf nee nañu li ci ëpp solo mooy jëf joo xam ne njariñ li dalaa jéggi dem ci keneen lu mel ne xam-xam booy jàngale ndax keneen mën na ci jaare jube ci ak lépp loo xam ne day day defar xol loolu it mooy gën ci jëf yi bépp jëf boo xam ni daa day raxas xol di ko defar ndax xol moo mat yi teewoo fi ne mooy yàlla yi dafa am yu fés am yu nëbbu moom la suñu mën a wax wa daru zahira lismi wa batinahu mooy yàlla yi nëbbu nag moo gën a rëy ndax yooyu ëllëg ngay xamee maanaam gaafam ak doy waaram ndax ndax suñu borom wax ne ëllëg moom yawma laa yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim boo fa yóbbul xol bu mucc xol bu baax xol bu jag loo fa mën a yóbbaale itam du baax yonente bi nee na fi mu ne laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min kibr noo mën a mel ak loo bari bari xam-xam ak lu sa jaamu bari bari te dara ci rëy ne ci yow doo tàbbi àjjana yow wax sëñ Tuubaa boo gisee ñi masaa ñëw ku masaa ñëw ci yow ci moom li muy njëkkeeg yow mooy fexe ba jëmbat ci yow ak woyof parce que woyof woyof gi nga xam ne moom la yàlla defal murid yi jeexiti woyof googu sëñ sëñ Tuubaa doon jëmbat la gis nañ sëñ sëñ bay jaxate wax ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo soxe ji yilif ko ak laxasu yelwaani laa yemale man ñoo yem ci moom moo tax sëñ bi wax ne jëf yi la ca gën mooy loo xam ne njariñam dala jéggi dem ci keneen waaye loo xam ne itam day defar sa xol ak loo xam ne daa diis ci sa bakkan bu fekkee ku nay nga koo xam ne moom joxe dafa naqari ci sa bakkan del ga sa bakkan ci joxe ndax moo gën ci yow bu fekkee da ngay ku bëgg xéewlu del ga sa bakkan ci di woor ndax moo gën ci yow ci jamono yooyu bu dee da ngaa bëgg a siiw ak bëgg nit ñi gis la del ga sa bakkan ci nëbbu ak sori nit ñi maanaam jamono ju ne seetal lii sa bakkan gën a bëgg ngay juyoo ak moom mooy yàlla itam wax na ne la ca gën a bon mooy li nga xam day woowal xol bu dee ci jàng alxuraan it wax nañu ne la ca gën te mooy nga jàng ko ci anam gu teey ànd ko setantal mooy mooy tadabbur wa afdalu dikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi wa aayatun waaxidatun tudubbirat fiihi tafuuxu xatmatan minhu xalat bu dee ci xeeti naafile yi itam nee nañu te mooy la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek lanu fàttali foofu wax neenu naafila la ca gën mooy nga defe ko sa biir kër dundale ko kër gi ndax jaamu yàlla yi ñuy defee ci kër gi mooy leeral kër yi yonente bi wax na ne waa asamaan bu ñuy xool waa suuf kër yi nga xam ne dañ fay tudd yàlla di fa jaamu yàlla day am dañuy mel ne nun bu ñuy xool biddiw yi leer gi ñu gis ñoo xam ne fee biddi nga fa ñoom bu ñuy xool kër yi noonu la ñu xamee ne fee kër nga fa goo xam ne nit a nga fay jaamu yàlla fekkee sa kër na yow doo fa def genn jaamu yàlla nag kër ga day lënd moom waa asamaan bu ñu ko xoolee dañ mën nañ ko boole sax ci kër yéefar yi dafa yàlla jégal wala ayaasu billahi taala ñu nga moo tax sëñ bi wax na ne naafile yi la ca gën mooy nga di ko defee ci kër ga te di ko def ci biir guddi gi rawatina nag bu demee ba mujj guddi ga nag loolu moo ci gën waaye mu jeexale wax jooju ne wa dum ala alladi alayhi tasbutu law jaaka al mawt lépp loo xam ne bu la ca dee fekkoon doo am gàcca te bu ñoo dee fekk la ca nee na loolu waxtu dee ca ne ndax dee waxtu ne mën naa ñëw dee waxtu ne mën naa ñëw moo tax lépp loo xam ni bañ nga dee fekk la ci rek neen bu ci ne ak lum juyoog sa bakkan nag itam ndax nee na bu juyoog sa bakkan it na nga xamal bakkan bi ne ko kat coono bii nga xam ne moom moom nga may moom nga bañ ma nekk ci xam nga bakkan coono lay bañ ay bànneex xam la am yoo xam ne moom la bëgg nga di ci ne waxtu ne waaye bànneex yooyu fam la yóbbu ëllëg du baax wal iyaasu billahi taala moo tax sëñ bi ne xamal ne li nga xam ne dee ba ñoo mu fekk la ci ku ne xam na ne am na ci sunu kilifa yu baax yi ñoo xam ni ci sujjóot lañ demee loolu kenn ku ne bëgg nga buy dee ñëw fekk la ci loolu loolu nag sëñ bi daa wax ne lu mel noonu dee ca sax loo xam ni ndax waxtu ne faatu mën naa ñëw dee moom sëñ bi jala dee fab na say maam fab maami say maam ba ëmatoo maam dana la fab kat dee kenn la dul ba donte dafay ba yónneen ba lay ba kay ngën ji aw nit dee daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teeral gaalam ci sag wet mag ñaa ngi koy daw ndaw ñaa ngi koy daw ñëpp a ngi koy daw te ñëpp lay jot moom du lu ñuy daw du du lu kenn xam waxtu waxtu wu ne tam mën naa ñëw ndax suba ci waxtu wi kenn amul du la leer ci ne suba ci waxtu wi fii ne du la fekk suuf si kon fexeel ba yow waxtu wu ne jamono yu ne na nga ko jàllale ci lu neex yàlla loo xam ni bu dee ñëwoon doo am gàcc tuub it sëñ bi dara digle na ko ci njëkk bunt boobu wax ne na ngeen ci sax te bul wax ne bu ma tuubee mën na maa delluwaat ci bakkaar yi nee na loolu bu mu la tee bu mu la tee tuub nee na loolu pexem seytaane la iblisul marid wa tarkuka tawbata xawfa an ta'ud ila al maasi kaydu iblisul marid nee na yow del tuub rek saa yoo defee ay njuumte tuubal rek donte da nga cey delluwaat it na nga tuubaat rek bu yàggee yàlla dana la yërëm teqale la ak yooyu yépp yi nga xam ne mooy dundal waxtu nag sëñ bi da koo tënk doo koo teqar ñi nag insha allahu taala day ñëw jëkk ñëw ci tënk bi doog a ñëw nag ci ni ko sëñ bi teqale ak tasaare maanaa yi nga xam ne moom la ci dugal lu waxtu yu may rek ñu dikk ko ci bu soobee yàlla fam ko tënkee mooy dafa wax ne wa amiril awqaata binnawaafili baada alfaraidi bila tagaafuli wa hakada bilsawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fi tamaadi wa bi tasadduqin wa jazbil maali ila dawil xaaji li wajhil waali muy dem rek dafa wax ne waxtu boo ko bëggee dundal yiñ ko mën a dundale yu baree bari la waxuñu nga defandoo yépp waaye yii loo ci man rek nga nekk ca te mooy farata yi moo ci jiitu suñ too am ca majmu'a bi cheb la móoloon waxoon na ca ne al istigaalu bil faraidi ma'an qabla siwaha waajibun qad xutima bala ngaa def lenn wala ngay kër-këri ci lenn na nga yittewoo farata yii soo ko defee ba noppi nag doo ko dugg nag ci naafile yi ak yu baax yi nga xam ne moo ci topp nee na farata yi moo jiitu bu farata yi jàllee nag am na mënees naa dundal waxtu ci ay naafila dana ci ñëw ci xeeti naafila yooyu mënees na koo dundal ci koor dana ci ñëw ndax fi ne jaamu yàlla goo gis rek am na am na naafila boobu julli am na farata waaye am na naafila koor am na farata muy weer wi nu ne waaye am na naafila mooy lu dul koor gi am nay woor yu sew sewaan yoo xam sëñ dana ci ñëw bu dee tudd yàlla benn bi ngay bi ngay wax laa ilaha illallah loolu mënta ñàkk ci sa dund moom la sëñ bi wax ci bunt bii waaye nag leneen loo ca loolu rek loolu loolu ci ci naafila lay tàbbi asaka farata la waaye am na naafila te mooy sarxe xaj màkka farata la waaye am na naafila mooy umra kon naafila ju mboolem li yàlla farataal da ko wutal ay naafila yoo xam ne boo bëggee ay ndolleen te naafila yooyu nag ci la ñuy mucc de naafila yooyu mooy mbir bi ëllëg yowmal xiyaam lii jàllale gaañe ci naafila yooyu la ne ndax dañuy ndax sun yonente bi neen dañuy natt say farata su ca dara amee lu ca manqué ñu jël naafila yi mottale ko ko bu fekkee yow farata rek nga daa def boo demee buñ ko nattee fekk mu manqué da nga am jafe-jafe bu rëy te yonente bi daa wax ne sunu borom dafa wax ci xadisu qudsi yi bi nga xam ne Buxaari ak Muslim yépp nettali nañ ko dafa wax ne sama jaam bi li muy def la ma ca gënal mooy li ma farataal ci moom waaye nag laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili xatta uhibbahu boo dee def naafile yi nag di ci jéem sa kem kàttan bu yàggee dama lay soppal sama bopp man suñu borom te suñu borom nee na bu ma la soppee maay nekk sa dégg di nekk sa gis di nekk say loxo di nekk say say say tànk te boo ma ñaanee ma may la te loo bëgg ma fekk la ci xam nga loolu naafile yi moo koy maye moo tax suñu wax ne naafile yooyu waaye naafile yi itam lu bari la bokk na ca lim ci lim lim ci lim mooy yéenew yiw sa xol nga fexe ba doo ci yéene kenn ab safaan loolu ci li ñuy dundale waxtu la fi ne bu fekkee yow yaa ngi teewlu ay yéene yu rafet xamal ne yaa ngi maanaam waxtu woowu yaa ngi koy jàllale ci lu neex yàlla ndax boo doon yéene ab safaan it safaat ba la lay jural fexe ba dugal mbégte itam ci xol ab jullit bañ cee dugal aw naqar loolu ba tey sëñ bi wax na ne ci ñi dundale waxtu ci la bokk waaye itam da caa da ko mujjee moom tënk boobu ne lu mën a xew na nga wut dog boo xam ni da nga koy saxal wirdu woo xam ni ak jaamu yàlla loo xam lay doon goo xam da nga koy saxal moom ginnaaw fara tey wutal moo xam xasida la goo xam da nga koy saxal wala wirdul ma xóos nga xam ne sëñ bee ko digaloon murid yépp wala jàng alxuraan ab dog ci alxuraan waaye wutal dog daal boo xam da nga koy saxal dog boobee nag mooy doon denc lay doon boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam dana la amal njariñ bu baax a baax a baax foofee waaye nag na nga ci sàmmonteeg ñaar mooy na sell def gi nga koy def na yàlla kese tax te itam na nga ko nëbbu nit ñi bul ko nekk di ko wanewu ci biir nit ñi ndax sëñ bi dafa wax ne fa jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru naf'uhu li ngay def ci lu baax la ca nit ñi xam njariñam du bari lu baax boo ko defee buñ la ci fayee téeméer soo nekkee di ko wax mën nañoo dem ba wàññi ko ba mu doon fukk sax wala mu nekk juróom wala benn wala sax ñu bañ la fayati dara te loolu yunte wax na ko ci xadis boo xam dafa wax ne nit ki dana def lu baax ñu bindal ko ko ci ku jëf-jëf ju baax ba noppi nëbb ko te def ko yàlla rek tax waaye mu dem ba mu yàgg mu wax ko ñu génnee ko foofee bind ko ci ku def jëf ju baax joo xam da ko wane ba ñëpp gis ko wal iyaazu billahi taala sëriñ bi teg ca ne na nga ci boole itam wërsëg yi la yàlla wërsëgale ci dund gii muy xéewal yi la yàlla defal bul ko jëfandikoo ci lu naqar wut ci lu naqar yàlla mukk waaw na nga fexe daal ba di fàgg lu lew loo amit nga xam ne yàlla la ko wërsëgale waaye nag bul ko jëfandikoo ci lu naqar yàlla mukk loolu moom la jeexale foofu yi doo ko dugg nag ci teqale bi te mooy tafsilu ma tu'ammaru bihi al-awqaat loolu nag lam ca jiital mooy naafile yooyu ma waxoon wax na ne bis bi boo jullee farata ba noppi am na naafile yoo xam ne war nga ko mën a def mooy boo jullee timis na nga julli ñaar rakka boo ko mënee wala ñeent wala juróom-benn loolu itam. wax na nu njariñe ca ne lii itam lu ci ne yonent bi moo ko digaloon ci ay xaddi sëñ bi tënkalaat na ko waaw ndax yonent bi dafa wax ne képp koo xam ni julli na timis teg ca juróom benn rakka mel na ne ku jaamu yàlla fukki at ak ñaar bindal lañ ko jaamu yàlla fukki at ak ñaar yoo xam ne danga ko jaamu yàlla xam nga loolu mooy tax juróom fukki juróom juróom benn fukki at yee ma waxoon jullit bi noonu yi la ko mën a mottalee ba mu mat loolu rek sa dund gépp day sànq moo tax sëñ bi wax ne yow foo jullee timis na nga julli ñaar rakka wala ñeent wala juróom-benn boo ko mënee suñ mag bi nag moom mooy képp positif moom ci li yàlla sàkk maanaam ginnaaw julli timis sëñ Basiru nee na ñaar rakka yam ci la julli Baqara ak Ali Imran la ci daa tari Baqara ak Ali Imran noonu ñi boo ko bëggee tari moytul gee dana weesu bu yàgg yàgg te moom dana ko tari def yeneen i mbir gee doo ko jot moom yàlla ko barkee la loolu waxtu wi ma ngoog loolu it wax na ci lu baree bari wax njariñ ya ca ne ñëw nag itam ci ne tisbaar it boo bala nga ko julli fexal ba nëfi la ñeenti rakka moom bëgg nañ ko sopp nañ ko itam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ko daa def digle ko itam boo jullee tisbaar ba noppit sopp nañ fa nga nëfi la itam ñeenti rakka bala ngaa julli tëkkusaan itam nga nëfi la fa ñeenti rakka doo ko julli ndax loolu da nga koy waaji julli gi xam nga boo nekkee ci yeneen di di xool di teleeg yeneen ba julli jot rek nga jug taxaw sa xel du ne ci julli gi ca ca la nga doon xool lay ne bu ñëwee nag njëkk julli nag ay rakka da ngay am tàmbali amuk teewlu moo tax boo agsee julli gi rek fi ne teewlu gi daal di mat sëkk loolu sëñ bi wax na ne lu am njariñ la ndax képp koo xam ne saxal na balaa julli tisbaar julli ñeenti rakka bu julli tisbaar ba noppi teg ca ñeenti rakka nee na kooku xorrima jismuhu ala niiraani gadan wa yasrau ila aljinaani faw dina tàbbi àjjana te yaram dañ koy araamal ci sawara du tàbbi sawara mukk loolu nag jar na ko te loolu it noonu la ko yonente bi waxoon sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi imaamu tirmisi nett li wax ne man salla qabla zuhri arbaan wa baadaha arbaan xaramahu llahu ala annaar bu dee njëkk takkusaan itam sëñ bi da wax ne na nga ko fonk ndax boo koy def yërmaande yàlla da ceene wa in adamta qabla asrin arbaa yarxamka dul jalaali kun muttabia maanaam boo koy def suñu borom da lay yërëm te yërmaande yàlla ñépp ko soxla loolu it moom la imaam Tirmisi yi nettali yonente bi daa wax ne rahimallahu raan salla qabla al asri arbaan muy dem rek damay tàyyi dugg ci nettaliwaale xaddis yi boo ko defee waxtu bi day dem ba tey ginnaaw gee sëñ bi wax na ne moom it na nga fexe ba gën jaa néew ñeenti rakkaamam nga nga nga nga julli ko bu dee ñi nga xam ne ñoo yore wirdul maxuus ñooñ moom sëñ bi fukki rakkaa la wax ne na nga ko fa julli ak safaak wetar mooy li ñuy def ci koor gi bu dul koor yi da nga koy wéyal murit mooy koo xam ne dëkk xiyaamu léeg-léeg dëkk itam siyaamu nahaar siyaamu bëccëg yi ndax bokk na ci wirdul maxuus sart ya mooy woor ñetti fan ci weer wu ne te woor ñetti fan boo ko def ci weer wu ne dañ la bindal ku saxoo koor koo xam ne daa woor jamono yépp boo ko boolee nag di naafi la xiyaamu leeli bii nga di ko def nga xam ne yonente bi loolu yi la daa def muy fukki rakka yooyu ak ñett muy safaak wetar ak ñett muy muy fukki rakka ak ñett fukki rakka ak safaak wetar muy fukk ak ñett loolu yi da ngay da ngay mel ne koo xam ne guddi yépp da nga koy dundal di di di woor bëccëg yépp mu nga moo tax sëñ bi wax ne ginnaaw gee gën jaa néew ñeenti rakka moom na nga ko fa julli te boo duggee ci jàkka itam na nga fonk nuyu jàkka ji itam loolu bul ko bul ko neenal mukk yooyu it wax na ci ay njariñ wax na itam loo xam ne nee na moom loo sàggan sàggan ak loo tayal tayal itam bul ko tayalaale te mooy wetar witr nee na akadu ala al mashhuri min kulli sunnatin moom mooy li gën a fetli ko ci sunna yi moo tax bul tëdd mukk te julliwoo wetar wax na itam ne ñaar rakka yi njëkk fajar loolu it nanga ko fonk ndax lu ñu xemmeem la te bari lool ay njariñ te boo koy jullit na nga ca jàng alam nasrax ak alam tara kayfa ña yooyu imaamul Ghazali moo ko waxoon sëñ bi nettali ko muy suratu sarxi ak suratu fiil ndax ñaar rakkaay fajar yooyu yonent bi daa wax ne rakaatal fajri xayru min ad dunya wa ma fiha imaam muslim moo ko nettali yonent bi ne ñaar rakkaay yi ngay julli njëkk ngay julli suba njëkk ngay julli ñaar rakkaay suba yi ñaar rakkaay yi ngay njëkk ñi ngay njëkk a julli moo gën adduna ak li ci biiram adduna ak li ci biiram nag xëccoo bi yépp boo gisee ci adduna ak li ci biiram la mboolem li ngay kër kër jeeg dugg beeg génn bi yépp ci adduna la ne te mboolem adduna ak li ci biiram nag julli ñaar rakka yooyu moo ko moo moo moo moo moo ko moo moo ko gën fa suñu borom tabaraka wa taala loolu lu rëy la moo tax sëñ wax ne yow it loolu it dee ko dundale waxtu wi waaw bu fekkee saxal nga ko bis bu ne ñu bindal la lu gën adduna ak li ci biiram te yow ba sa dund day jag yow moom dundal nga waxtu yépp yow sëñ bi ci biir bunt boobu ci njëlbeen gi bi mu daata génn bunt bi leeral nañu yenn atte yu am solo te mooy boo jullee suba ba noppi nag foofu la wax ne na nga fexe ba bul nelaw ma suba yonent bi daa wax ne ci dañuy wër ci dañuy séddale wërsëg yi waaye koy séddale nag bu ñëwee fekk da ngay nelaw dañ naa ne ah waa ji suñ koy yow la ñu mujj mujj mujj lijjanti moo tax suñ wax ne wa karihu bu'ida subhinil kalaam ila tulu'i samsi qul ahral manaam nelaw moom bul ko ci def mukk rawatina nag wax ju amul njariñ it bul ko def moo tax wërd yi ci jamono yooyu lañ koy def xam nga sëñ bi teg ca de boo jullee suba ci biir jullig mbooloo ba noppi toog di tudd yàlla ba jant bi fenk na nga na nga xam ne bind nañ la yoolu ku aj màkka umra itam te jamono yi nga xam ne yow tëj bunti aj nga xam ne kenn mënta aji mën nga am yoolu màkka yoolu aj màkka fii nga toog boo jullil suba rek ci biir mbooloo mi nga toog fa di tudd yàlla ba jant bi fenk te loolu boo defee wirdul maxuus sa teelu ko rek fi ne jant bi mën na faa fekk ndax diggante fi ñu julli suba ak fi jant bi fenk du sori waxtu te maxuus boo ko teeloo bañu mel ne sama classe gi gaawatu ko man man nga mën na la faa fekk te loolu rasulullah moo ko waxoon sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi imaamu Tirmisi yi nettali wax ne ku def loolu ku julli ñaar rakka loolu yonte bi wax na wax na ko ne summa man sallal gadaata fi jamaatin tumma qaada yadkuru llaha xata tatlu alchamsu tumma salla rakaatayni kaanat lahu ka ajri xajjatin wa umra nee na yonente bi da caa wax ne tàmmatin tàmmatin daa wax ne aj gu mat sëkk lañ la cay bindal aj gu mat sëkk aj gu mat sëkk umra gu mat sëkk umra gu mat sëkk lañ la cay bindal noonu la ko yonente bi baamoo alayhi salaatu wasalaam sëñ bi wax ne itam bokk na ci naafila yi nga mën a dundale waxtu itam mooy julli yoor yoor bu jant bi fenkee ba julli dagan na nga julli gën jaa néew ñaar rakka wala ñeenti rakka wala juróom-benn wala juróom-ñett juróom-ñett nag da wax ne bul ko weesu ndax yonente bi mosu koo weesu sallallahu alayhi wa sallam yonente bi danaa julli daana julli ba juróom-ñett waaye mosu koo weesu sëñ bi nag wax ne julli yor go yor yor googu li tax mu am solo mooy ku koy sàmmonte sunu borom dalay sàmm ci kaw suuf sunu borom moo lay aaral boppam gis nga xew-xew yi yi yi xew sàmmkaay bu nañu leen na ngeen ko def ngir ñu sàmm leen takk leen masque dugal fii bu nuyu diw waaye moom yow bu fekkee saxal nga di julli yor yor bis bu ne donte ñaar rakka la suñ suñ mag bi nee na suñ suñ borom jom moo lay aaral boppam dara du agsi ci yow corona be lépp lépp dara du agsi ci yow te nee na meneen mbir a ngi ci mooy yowmal xiyaam buñ ci àggee yor yor ci boppam mooy wax ak suñu borom yow moo lay moo lay moo lay wax waxal ak suñu borom moo naa suñu borom waa jii de ba mu nekk ci kaw suuf daana ma sàmm moo tax nag na nga ko na nga ko jéggal te suñu borom bu ko yor yor sàkkoo ci moom loolu dana ko ko dana ko ko defal waaw nee na boo ko dee sànq nag nga xam doo julli yor yor buñu demee dana wax suñu borom ne ko diw mais de moom dawul julli dawuma julli moom moom moo xam nag nga seet noo def ak moom moo tax julli yor yor sëñ bi de ci bokk na ci ñi dundale waxtu nafile itam sëñ bi daana wax ne la ca gën mooy nga def ko ci ci guddi nafile yi ñuy def ci guddi mooy di ci ëpp solo nafile yépp baax am na dañoo gënante am na yoo xam ne mooy ëpp doole ëpp yool ëpp tuyaaba ëpp leer gën a gaaw itam ci jeexit yooyu nag nee na mooy yi ngay def ci guddi gi waaw bu dee guddi itam na nga ko yalu waaye bu dee bëccëg it na nga ko na na maanaam bu dee guddi na bëral lañ ci sopp waaw bu dee bu dee bëccëg nga yalu ko suñ bi wax ne am na wuute foofu mooy ndax naafile gi nga julli donte ñaar rakkaa la tem yàgg moo gën wala boog nga julli rakkaa yu bari yene foofu borom xam bi dañ cee wuute am na ñu wax ne naafile gi yeex te te nga tarifa lu bari ku mel ne sëñ Daam Abdurahmaan la ku ne xam na ne guddi gi ñaar rakkaa la ci daa julli yoo xam ni alxuraan jëpp la ci daa tari xam nga ne kooku moom maanaam tari na maanaam maanaam ak ak julleem yeex na waaye ku mel ne sëñ Maamoor Jaara moom téeméer rakkaa la daa julli la daa naafila ci guddi gi loolu nag sëñ bi wax ne ak teq la goo xam ni ku ci ne am nga tegtal ñaar yëpp baax daal ndax yonente bi wax na ne afdalu salaati tuulul qunuut loolu yonente bee ko wax ci xadis imam muslim waaye boo dee sëñ bi wax na itam ne boo dee julli rakkaa yu bari itam ndax saa yoo sëggee rek sa bakkaar sa bakkaar yaa ngi rot maanaam loo loo gën a sëgg rek ak sujjóot beeg yooyu say bakkaar day gën di rot leeru yàlla di gën di sipp ko sa kaw itam loolu ba tey moo tax kenn ku ne ci ñaari taxawaay yooyu am nga say taxawaay te ñaar yépp dikk itam ami ci silaay kon loolu mooy naafila sëñ bi dugg nag ci koor koor it bokk na ci ñi dundale waxtu sëñ bi wax nañ lu am njariñ la li ñu wute ngërëmul yàlla la ca ëpp solo nee na nee na mooy koor amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta bihi talabta mardatan bihi wa ni'ama li anna fi ljannati baaban laa yaqib fihi siwa ahli siyaami faxtasib nee na li ngay wuti ngërëmul yàlla la ci ëpp solo mooy koor ndax koor suñu borom da ko bañ ba wutal ko ca àjjana mu wutal ko fa buntu boppam boo xam ne ñiy woor kese ñoo fay tàbbi muy arrayaan daat ne nag boo bëggee nag di def naafilay koor ak di dundal waxtu yi ci koor am na nu imaamu Malik daa def te muy lu am solo te mooy weer wu ne da ci daa woor ñetti fan te xam nga ne suñu borom nee na ku def benn mu fay la ci fukk te benn buñ ko fulee muy fukk kooku mel nga ne ku woor weer wépp kon yow mel na at mi yëpp yaa ngi woor moo tax mu ne loolu it genn anam la ci ni ñuy dundale maanaam waxtu yi ci koor waaye itam wax na ne itam am na yenn ti bis yoo xam ne yu nit ñu baax ñi fonk la day wër ci at mi te mooy juróom-ñeenti fan ci weeru diggiw tabaski ci wetu tabaski rek ci weeru tabaski ci moom ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci maamu koor ak ñetti fan ci weeru tamxarit ak fukki fan tamxarit ba tey ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggu tabaski ak fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ak juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski yooyu fan juróom-ñaari fan la yoo xam ne dañuy wër ci at mi te barke lool nee na itam ku ko mën a dàkk dee ko dàkk ndax njariñ yu bari da caa ne ndax dafa wax ne képp ku koy woor lim bëgg lépp dana ko am ci kaw suuf loolu nag lu rëy la fa kullu man fi sawmiha yaduumu fa sa yanaalu kullama yaruumu wax na itam ay weer yoo xam ne yu mat di dàkk la di ko woor te mooy weeru maamu koor muy weeru rajab ku mën a woor lépp mooy la gën weeru baraxlu noonu nga xam ne yonte bi lim ëpp lim daa woor ci weer woowu la ko daa woor daana woor sax léeg-léeg weer wépp moom baraxlu muy shaabaan ak muharram muharram mooy tamxarit moom it nee na ku ko mën a woor lépp moo gën biir tamxarit wax na ne am na fa bis boo xam ne bu am solo la te mat a fonk ndax yonente bi da ko daa woor te fonkoon ko mooy ashura mooy bisu fukkeeli fan ba fukki fan ci weeru tamxarit lu mat a fonk la am na ci yu bari yu mu wax ne dañ ko cay def te mooy dañ koy woor def ci ay naafila mooy julli giñ ci julli jokk ci bokk ak sangu ci càngaayal farata ak saraxe ci ak maanaam say we nga dagg say we lewi say we ak tus ngalu ci ak seete ci ku tawat ak siyaare ji boroom xam-xam ak raay ci boppu jiriñ boo raayee na nga teg ci dara nag noonu la ko mag ñi daa defee ak jàng ca suuratul ixlaas junni yoon yii nii lu ci ne dafa am njariñ yu bari yu ci ne yoo xam ne moo tax nee na bu ñu àggee ci tamxarit na nga ko fonk te di ko def lu ci ne itam am na ci silaay am na fu ñu ko mën a delloo ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu xëy na beneen jotaay lay laaj ni ñuy wooree itam sëñ bi wax nañu ko koor dafa am aw anam guñ koy defee te mooy fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan lisaami mooy sa cër yépp da nga leen di wooral bul dugal dara ci sa gémmiñ ne gémmiñ gi woor ak biir bi waaye nag sa cër yi na nga leen wooral bu bu ci def mukk lu naqar yàlla bul ci xool mukk lu xaraam bul ko diglu bul ko bul ca dox jëm bokk na ci yi ñuy dundale waxtu itam te sëñ bi indi ko ci buntu boobu mooy wird wird itam sëñ bi dafa wax ne lu rëy la ci lislaam amma ida jahilta sha'na al wirdi fa'lam bi annahu azimul qasdi wird day am nañu ko umpule waaye xamal ne lu rëy rëy daraja la ci ci biir lislaam yi ñuy jaamoo yàlla di ko jegeñ-jegeñ loo suñu borom amul lu ci gën a diis lu ci gën a rëy lu ci gën a gaaw wird wird nag sëñ bi tekkil nañu ko mooy shay'un murattabun min al ibada mooy jaamu yàlla goo xam ni dafa am nuñ ko nuñ ko nuñ ko tëralee nga wutal ko waxtu saa yu waxtoo jotee nga def ko loolu nit yàlla yi nga xam ne yonente bi moo leen jox ay xeet tudd yàlla yoo xam ne mooy seen wird nga xam tariqa boo dugg ci ñoom dañ la ko dañ danga dañ la koy jox nga di ko jëfandikoo bu dee suñ tariqa bii Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu suñ borom da ko dajaleel mbooleem la gaañe yoroon lépp dajaleel ko ci yenn ci ci yenn tudd yàlla muy alwirdul maaxoos mu wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiqi alqawmi alladina jamaau fi ne bu ñuy wax tariqa wirdu wee tax nit yàlla yi am na ñu baax ñu àgg ci di jëflanteeg rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme Cheikh Sidil Muxtaaril Kunti waaye ku ci amul wird kenn du la tudd tariq sëñ bi nag tariqa nag ñi ko amit ñu néew a néew la fi ne am na ñoo xam ne leen digal tërbiye ñu am mën hëj tërbawi di tërbiye nit ñi te loolu la sëñ bi njëkk am ca ca ca ca ca Mbàkke Kajoor waaye am na ñoo xam ne ñu am tariqa mooy mooy wird xaas muayyan dégg nga boo xam ne yonente bee ko koy jox ngir mu di ci tërbiye nit ñi ak di leen ko jox am nag ñoo am sëñ bi nag dolli ca am nag ndigalul yeesal diine ji tëj ji loolu mooy li gën a kawe yooyu ay maratib la yoo xam ne benn bokk ci sa morom waaye sëñ bi wax ne fexeel ba am wird mooy dog dog rek boo xam ne ci jaamu yàlla mën naa nekk ak julli mën naa nekk ay ay ay tudd yàlla mën naa nekk alquran jooy jàng mën naa nekk sax xam-xam booy jàngale mën naa nekk sax fi mu ne xasiida dogub xasiida booy jàng mën naa nekk sax fi ne loo xam ne nit yàlla yi dañ ko daa def wird mooy toog di wax xéewal yi la yàlla defal te jubluwoo ca puukaréew nga di jublu wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ne loolu doogu wird la boo xam ne sëñ bi jëfandikoo na ko ba tey ci biir xasidaam yi sëñ bi wax na ne wird leeral na na ko ci ñi nga xam ne ñoo ko xamul wax na ne wa asluhul waxyu aw il ilhaamu yaxussuhu bi ahlihi salaamu wird cosaanam ci alquran lay bàyyi ko wala xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa koy wax yu yonente ba wala yonente bi bàyyi woon ko fi suñu borom xamal ab jaam ay njariñ ci biir yooyu loolu fi yonente bi bàyyi woon ngir mu jëfandikoo ko mooy ilham dikkal ko ci wax yi moom ab yonentee ko moom loolu lañ sëñ bi wax waaye ilham moom awliyaaw yi yàlla leen koy defal wax nag ne bisaatuhu kitaabuhu l munazzalu mufarraqan wal atharu l musalsalu dugal ci awraad yi lépp ci alxuraan lay dellu ay ay alxuraan la ak ay ñaan yoo xam ne yépp ci yonent bi la bàyyi ko waaye nag la ko wutale mooy ñi lii ñii yonent bi moo leen ko joxal boppam foofu la mbir ma ne kuñ ko jox day wuuteeg nga fekk woon ko fi ne ca téere rek jël ko mu ngoog sëñ bi di wax na ne itam awraad yi yi tarixa yépp am it na nga xam ne yépp mënees na koo dundale waxtu ndax yépp dala yóbbu ca suñu borom tabaraka wa taala moo tax nee na ñi yor wirdi yi itam ci biir tarixa yi bul ci ree kenn bul ci sikkal kenn na nga xam ne ñépp ci njub lañ ne fa kulluhum yad'u almuridina ila taa'ati rabbil arshi haythuma jala bil istiqamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim ahad waaye nee na bu la yàlla defalee tawfeex ba nga jël aw wird wirdul maa xoos yàlla na ko yàlla na doon wirdul maa xoos yàlla na doon itam siixa bi ñuy wax alkaamil nee na boo na nga ko màggal nag te fonk in axadatal wirda fal tubajjili umóoroo na nga ko fonk bu wér a wér a wér a wér te xam ne yor nga lu diis lu rëy lu bari jeexit yoo xam ne njariñ yépp mi ngi ci waaw ndax suñ bisir doo wax ne fa jamaal kulla wa zaada wartaqa fa in axadta wirdahu axadta wirdal jamii boo ko jëfandikoo yaa ngi def mbooleem ñu baax ñi dañu def ci kaw suuf yépp tey def lu ñu defut nag lu ñu fay keneen ci kaw suuf dañ la fay lu ñu toll fi te seytaan du am ci yow aw yoon ndax du la ñimee loolu sëñ bi wax laa yaqrubu seytaan te faw di nga tàbbi àjjana te kenn du la jëm ci sa mbir dara loolu sëñ bi wax moo tax loolu ëpp na sàggane lu mat a fonk la moo tax sëñ bi ca mujjug buntu boobu wax na ne ñi nga xam ne ñoo koy umpule di ko diingat nee na ñooñu fadu jahalatin moom dañoo réer dañoo réer te xamuñu li xew di Cheikh Mouhamadou Mountakha mu baax mi wax ne xam li xew moo jafe xam nga xam li xew moo jafe waaye ki xamul li xew rek mooy mooy mooy mu ump la ñu demee noonu ndax falaa yuxafifu umuur al wirdi siwa xasuudin duqilan wa xeqdi fa kayfa yustaxqaru dikrullahi adaamahu lfata bila tinaay an wird tudd yàlla la goo xam ne yàlla moo digle ne na bari yaa ayyuha alladina amanu udkurullaha dikran kathiran boo ko woyofalee rek xamal ne yow xamuloo te am nga jafe-jafe ndax weddi nga lu yàlla saxal ak lu yàlla bëgg mu bari ci kaw suuf moo tax man lam yudim shay'an min al awraadi mudayya al waqti ala tamaadi fala lahu yawma yujaza annaasu illa garaamun wa jawan wa baasu li may wax ni mel na ne nosowul waaye sëñ bi jox nañu yoon wu leer mooy bis bi fexal ba del julli farata yi neefile yi loo ci mën nga di ko def te wutal ab dog boo xam ne moom ngay am ci bis bi bi set nga di ko def te boole ko sa xolit nga di ko nemmi ko di ci yéene aw yiw te di ci wax aw yiw te bu ci yéene kenn ab safaan jikko yu bon yi sa biir nga feex ba génn génn leen ci te fonk tuub ak yooyu ma wax yépp nga xam ne jaar naa ci sëñ bi indiwaat beneen bunt nag boo xam ni bokk na ci ñiy dundale waxtu te mooy tudd yàlla tudd yàlla sëñ bi wax na ne dara gënu koo màgg nee na amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru murid bi rawatina ab taalibe li muy baril la ca ëpp solo mooy mooy tudd yàlla Sëñ Tuubaa daa wax sax ne yow na nekk saw ñam wi ngay wi ngay wi ngay dunde ndax mooy dundub xol xayru taami lil muridi saalik dawaamu dikri dilal malik wa alam bi anna dikra quutul qalbi maanaam sa xol li muy dunde xol ab taalibe li muy dunde mooy tudd yàlla tudd yàlla nag defal wirdul maa xoos ne sëñ Maamoor ñoom ñi waaye bu fekkee sa maanaam nemmi kooku wala boog juguwu la ki nekkal ci xaside yi yooyu bu fekkee ne mënoo ko itam wala mënoo jàng nekkal ci laa ilaha illallah yooyu yépp ci tudd yàlla yi ci yoon wi la bokk suñu mag wax na ne bi muy nekk fii laa ilaha illallah ji dañ ko daa sikkar ci wetam am na wax nañ sax ne am na jamono yoo xam ne moom ci boobu moo daa dëbbe muri di di aw laa ilaha illallah yoo xam dara du ko rax moo tax yooyu yépp xeet tudd yàlla yoo xam ne loo ci man rek yaa ngi ci Sëñ Tuubaa nag dara wax ne képp ku yàlla da cee wax ne képp koo xam ni soxalul genn tudd yàlla nga xam du tudd yàlla xamal ne kooku moom xel ma neexul xamul li xew fa xumrun laahi ndax tudd yàlla nee na mooy bidaayatul wilaaya wa tarkuhu nihaayatul gawaaya bañ a tudd yàlla ak woyofal ko nee na fa la ak mbewte ak ñàkk xéewal foofu la tàmbalee wax na itam itam ay atte yu baree bari ci tudd yàlla xam naa bu ma ci bëggee jaar dana gën a gudd mooy dafa am wuute ci ndax dañ koy wax ci kaw lu ci gën wax ci kaw ak wax ci suuf foofu it am na wuute bu ci am am ñu ne boo waxee ci kaw keneen mën na la digg roye ci te loolu boo moom it la muy def lañ ko ciy bindal dañ la ko bindal waaye itam wax ci kaw it ngistal mi ngi ci sëñ bi fam ca mujje mooy dafa wax ne yaay xool sa bopp su fekkee ne wóor na ne wóor na la ne mucc nga ci ngistal ngay wax ci kaw waaye nag bul yàqal keneen leneen bu nekk ci wetu nit koo xam ne daa wéradi wala ku am yeneen yitte wala ku bëgg a jàng nga di ko tànqal ba yàqal ko la muy def fi ne neefi la rek boo ñëwee ci biir julli gii nii ci ci imaam raw la nga war a fay war koo wax war a tari ca kaw fi ne yéen ci fiqu Maalik gis nga dañ leen digal ngeen ngeen ngeen bañ a tari ca kaw te yéen ñëpp ngeen wax ndànk ngir ngeen bañ a yàqalante kon lu baax li ngay def it fexal ba bul ci yàqal keneen moom ak donte mucc nga ci ngisal bu la wóoral na ngisal mën a ci taat bi moom nee na bul def ca kaw del wax ndànk rek ndax moo moo gën ci yow bokk na ci itam lu am solo ci tudd yàlla mooy dafa am dafa am ay teggin yoo xam ne moo lay mooy jur njariñ mooy tax njariñ am ci teggin yooyu mun cee ñàkk te mooy nga nga di ko def ci kaw ak laab te toog ci bërëb boo xam ne bu laab la itam jublu penku toog mel ne kuy julli ànd ak teggin yu mat sëkk loolu niñ ko fonkee bëggee ci tudd yàlla noonu lañ ko bëggee ci wird yi rawatina wirdul maxuus te nga boole ca nag teewlu sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu wa ardaahu te boole ko xeet gu neex ndax booy tudd yàlla malaayka yi dañuy ñëw jege si la yonente bi wax na ci xadis bi imaam muslim nat li ne am na malaayka yoo xam ne yàlla da leen a sàkk ñuy wër bërëb yi ñuy tuddee yàlla fi ne te jotaay yii yii ñuy defee ci tudd yàlla bokk buñ ko gisee neen dañuy ñëw ñoom malaayka yi wër leen wër leen tiim leen ba ca kaw asamaan sa ndax dañoo bari buñ fi jógee nag dem nettali suñ borom li fi xaw ne ko de gaa yi daña nga toog da nga fay def nangam ak nangam suñ borom loole moo leen ko gën a xam waaye teewul nag suñu borom dina wax ne ñoom ñëpp na nga xam na ngeen xam ne jéggal naa leen nee na malaayka yi ne ko diwa nga fa waaye nag moom kat waxtaan bi dox ko woon a jóg fi ne jotaay bi dox ko woon a jóg dafaa jaaroon rek suñu borom ne ko nag ñooñee ku jotaay ak ñoom rek ma jéggal leen ulaayikal qawmu laa yasqa jalisuhum kon tudd yàlla yi daaw yaakaar na waxtaan nañ ci am am na ay teqale yu bare bari yu ci aju am nay tegg ni ñu koy defee mooy li may wax lu bare bari mooy tey boo dee jàng xasida mi ngi mel ne nga sukk ci ndab di xewlu bala nga sukk aaja na nga raxasu ndax boo raxasuwut micro bi day nekk sa sa ci sa loxo ñam yi du la def dara moom waaye micro bii ngay dugal la ci ñam yi moo lay indil jafe-jafe mais faaw nga raxasu tudd yàlla yii nag ak xasida yeeg jàngeeg yooyu da aaja ak laab laab googu yi boo ko deful sikk yi foofu lay tàmbalee ñaareel bi itam xewlu itam aaja na nga wax bismillah ci njëlbeen gi bëgg nañ ko ndax sëñ bi waa nee na booy xewlu boo waxul bismillah seytaane moom ngay bokkal moo tax jàng xasida ak yooyu yëpp it aaji na yéene ndax yéene jooji yéene mooy ruuxu jëf te sa yéene sell mooy yàlla kese kese kese tax bul dégg ne lii boo ko jàngee da ngay am nangam nga tàmbali jàng loolu yow yàlla taxul ngay def fi ne leneen ngay jaamu lu may yàlla loolu na yàlla bëgg ko amu ci soxla moo tax na yàlla kese tax te itam ak ndab itam boo ca sukkee itam maanaam da ngay jël lu yem ci yow boo jëlee lu ëpp rek mu daal di feeñ nga gis jeexit yi jaamu yàlla yi tudd yàlla yi noonu la demee da nga ciy jël lu yem lu tolloog yow nga saxal ko na li ëpp solo ci yi ñuy jëf mooy li sax te itam tudd yàlla yooyu nag mooy dundal xol waaye waaye waaye xam-xam mun la ñàkk ndax mooy làmp bi lay niital yoon wi waaye dinaa wax ne itam làmp itam ak ak ak ak xol buy xol bu am maanaam xol buy dund itam yor maanaam gasoil bu doy itam ba day taxul mu doy faw mu am ku yor ab kii bi laab gi di kóolbati lu ko mooy rek mën ngaa saaraan mooy ab sëriñ sëriñ it mënut a ñàkk ci mbir mi sëñ biit wax na ci lu bare bari ci biir wuntu boobu wax ne kii doog a tàmbali li gën ci moom muy wax loo xam day dàq te mooy wax lu mel ne laa ilaha illa allah nga xam day dàq beneen buur ak leneen lu ko yilif ku dul yàlla subhanahu wa taala ña nga xam dem nañ ba seen xol nag jag ñoo mën a ñeem ci allahu kese rek loolu la wax foofu it wax na fa yeneen xeet tudd yàlla yu bari yoo xam ni waxtu yu du ko maye waaye wax na ne bismillahi rahmaani rahim lu am solo la te bari ay njariñ lool laa xawla wala quwwata noonu allahu akbar noonu audu billahi min ashaitan rajim noonu alhamdulillah noonu julli ci yonte bi noonu istighfar it muy jéggalu suñu borom it noonu la noonu la demee lu ci ne itam wax ne njariñam njariñam nee na boo dee bari looy looy looy kàbbar wax allahu akbar ak alhamdulillah loolu da lay jural màggal suñu borom suñu borom day rëy ci sa xol te itam da ngay maanaam rajaa u da lay yomb mooy yaakaar mooy mooy gën a not ci say ci say yëgeeg te itam da ngay bëgg yàlla itam yàlla it da lay bëgg nee na boo dee bari loo wax laa xawla wala quwwata illa billah al-azim ak xasbunallahu wa ni'mal wakil mooy da lay yóbbu ci nga wéeru ci suñu borom maanaam tawakkul bu wér da nga koy def ci suñu borom nga xam ne doo dara dootu la tiital doo bàyyi xel leneen itam julli ci yonte bi nag moom wax na ci lu baree baree bare ci ay njariñ nee na da lay yóbbu ci nga am cofeel gu rëy ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax nag mu taxaw ca wax ne li ngay jàpp fexeel ba la cay ëpp solo na doon moom julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fa fa hiya ajallu ma tamassakta bihi ba'da ada'il fardi boo defee farata yi ba noppi amut li ngay def lu ci ëpp solo moom julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na moom boo amutub sëriñ sax doy na sëriñ doy na ab sëriñ loolu moo indi xasidaam yi nga xam ne moom la def ci salaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam boo ci ngoyee bu wér mu mën laa doy sëkk donte nag ni ma ko waxee sëriñ bi nga xam nag moo yor sag laab moom di la wëlbati moom di la diggal ak a tere kooku moom daa mënta ñàkk lu ko mooy saaraande la yomb moom mi ngi mel ne oto bi rek xaw ma am gasoil te mooy tudd yàlla yi xaw ma am ay lamp te mooy xam-xam boo xam ne ci ngay xam fi ngay jaar waaye xaw ma am nag ku yore laab gi di ko wëlbati sëñ bi wax na ci itam lu baree bari wax ne julli ci yonte bi li tax mu am solo mooy day tax yàlla defal la sutura sa àdduna te sa bakkaar yépp suñu borom dala koy jéggal te dalay goreel ci sawara sa aajo yépp it day gaaw a faju te itam dalay àggale ca suñu borom tabaraka taala di la soril sawara itam waxtu wu ne day leeral sa biir itam ak sa jëmm ak sa ak sa biir ak sa biti da koy leeral waaw day waral itam nga bokk ci ñi yonente bi di ràmmu ëllëg wax ne nag li ci ne ci ay njariñ moom yàlla kese kese moo ko xam wax na itam ay téere yoo xam ne salaatu ala nabi moo ca ne ci mbaaxam rek waxul téere yim taalif moom waaye dafa xam lu mel ne dalailul xayraat ak nafxu tiib ak alkunóos waaye ku ne xam na ne muqaddamatul xidmal kubra kooku moom salaatu ala nabi moom moom dara gënu ko cee kawe gënu ko bari maanaam mu gën maanaam li li ñu bind ci salaatu ala nabi téere bu baree noonu salaatu ala nabi sax yombu ta gis ak suxra ak kanzul muhtadina ak nuuru daareeni ak jaalibatul maraaxib ak ak mafatixul bisri yooyu yëpp salaatu ala nabi la kese mi nga sëñ bi wax na itam lu mel ne jéggulu yàlla itam lu mat di def la ndax njuumte yi daa yomb te mën a bari nee na boo baree looy jéggulu yàlla istiqaama da la yomb mooy jub xocc da la yomb bismillahi rahmaani rahim itam wax na ci njariñ yu baree baree bari nee na boo koy def rawatina nag nga saxal suba gu ne nga jàng fukki bismillahi rahmaani rahim jeexale ko laa xawla wala quwwata illa billahi al-azim nee na boo ko defee bis boobu moo xamal ne mel nga ne bis bi nga ganee àdduna ci set ci bàkkaar mooy sa bakkar yépp faral nañ la ko ba desee woo lenn mel nga ne bis bi nga ganee àdduna nga xam ne dara ci bàkkaar amatoo ko moom saa yoo xëyee def ko rek mel nga noonu loolu nag lu am solo la waaye nag yonte bi daan wax ne yooyu ñuy jéggale moom bàkkaaru bor du ci bokk lu amale nit bor moom fay rek bàkkaar bor moom bokkut ci yooyu te sëñ bi nee na loolu du ci yem suñ borom bis boobee boo xëy suba wax bismillahi rahmaani rahim fukki yoon teg ca laa xawla wala quwwata illa billahil azim illa billahil azim nee na bis boobu itam suñ borom dana la ubal dana dox sa digganteeg juróom-ñaar fukki bunti balaa yoo xam ni yépp dana ko tëj ba du ak si teew te balaa yooyu la cay gën a woyof mooy lu mel ne siti ak ngaana ak yin deme noonu te suñu borom dana la booleeg malaaka moo xam ni ba keroog ngoon di jot juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ni dañ lay jéggulul yàlla di la ñaanalu yiw ba keroog ngoon di jot loolu it bari na ci yoo xam ni wax na ko ci xeeti njariñ yu mel noonu ci biir buntu boobu yi wax na ne itam ne bismillahi rahmaani rahim dafa bokk ci kiiraa yi nga xam ne boo koy boo ci tudd yàlla di ko ko tudde day dox sa diggante ak jinne day suñu borom day wut kiiraay lu dox sa diggante ak jinne duñ la mën a agsi ci yow duñ la mën a lor soo ko jàngee juróom fukki yoon ci kanam ab tooñkat it suñu borom day woyofal xolam ba du la mën a lor muy dem rek loolu it wax na ci lu baree baree bari loo xam ni buñ ci taxawee day gën a gudd laa ilaha illallah itam wax na ca lu baree bari wax na ne li gën ci li ngay wax te nit ki di ko wax mooy laa ilaha illallah wax na ne loolu moom képp koo xam ne yaa ngi koy sikar te am ci pas-pas bu dëgër faw di nga tàbbi ajana ndax yonente bi daa waxoon ne man ak yonente ya ma jiitu woon li ñuy li ñuy li ñuy wax amut li ci gën laa ilaha illallah afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah wax na itam meññet yu baree bari yu nekk ci laa ilaha illallah mooy dala jural tawxidu al aarifina mooy tawxidu ak tawxidu al irfaani moom la lay jural ak yeneen njariñ yu baree baree bari yoo xam ne wax na ne mbooleem njariñ yi ne ci yeneen tudd yàlla yépp daa dajawaat ci laa ilaha illallah sëñ bi nag ca njëlbeenu bunt ba sax wax na ne jëmmi tudd yàlla rek dafa am ay secret yoo xam ni ay wax fi ne amu ci njariñ da ngay mos rek doo ko xam da ngay fonk amub dog boo xam na nga koy saxal te yàlla kese tax nag bul ko def ngir xam lenn mbaa gis lenn mbaa mbaa mbaa mbaa dem fenn defal ko te yàlla rek tax nee na boo ko defee rek ci ngay mën a xam njariñ yi ci wax mooy da ngay fase addunoom da lay jaral sa waxtu yi itam nga tënk sa bopp ba doo ko yàq di ko def ci du neex du neex suñu borom wax na itam ci mujj buntu boobu ñaan gu am solo goo xam ne bala ngaa tëdd nga ko war di def te mooy bala ngaa tëdd boo ko manee nga jàng fatiha ñeenti yoon qul huwa allahu ahad ñetti yoon defal baaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alazim moom nga def ko ñeenti yoon astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum moom it nga def ko fukki yoon doogu julli ci yonte bi nag ci anam gi allahuma salli ala badri tamam allahuma salli ala nuuri dalam allahuma salli ala miftaaxi daari salaam allahuma salli ala shafii fi jamil anam moom it nga def ko fukki yoon ne loolu boo ko defee bis boobu mel nga ne ku fekk ab miskin nga jox ko ñeenti junniy diinaar yoo xam ne wurus la ak ak ak or te mel nga ne ku wàcceb kaamil itam ci bis boobu mel nga ne ku aj ak ku umra te mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga amee li xaq it mel na ne fay nga leen ba matal ba ba mat te faw di nga tàbbi ajana bu ajana bu doon daa amul njëg mel nga ne ko jënd bañ bañ ba joxe njëgg ci loolu yi nga def te loolu lu yomb la lu mata lu yomb saxal la alquran karim itam sëñ bi wutal na ko bunt wax ca ay njariñam wax ne ku bëgg a jege yàlla na saxal ci na sax di jàng alquran wax ne mooy mooy tudd yàlla moom li ci gën a kawe mooy jàng alquranul karim loolu wax na ci lu bare bari wax ne na nga fex ba di ko saxal te xam ne amul lenn lu gën a màgg itam te bul ko tong mukk te boo koy jàng itam loo ci gis muy melowoo suñu borom tagge aw nit na nga jàpp ne yow lay waxal nga jéem koo melowoo lum melowum ŋàññi itam na nga ko jéem a moytu te na nga koy setantal ndax lum néew néew te nga ànd ku setantal rek moo gën lu bari te te setantaloo loolu it sëñ bi wax na ca lu baree bari ci buntu boobu wax na tegg ni nga xam ne moom la ñuy jànge alxuraan itam ñëw na ca xëy na waxtu wi du nu may nu dëkk ci yépp wax na itam jàng itam ci kaw ab kaamil yor ab kaamil di xool foofu dafa bari ay njariñ mooy sa bët mi ngi jaamu yàlla sa lam mi di jaamu yàlla loxo bi nga ko yor di jaamu yàlla penk bi nga ko tegit di jaamu yàlla moo tax loolu it wax na ca lu baree baree bari ba tey mokkal alxuraan it wax na ko ne fardu kifaaya la faw ñenn di ko def loolu soññee na ca ci biir bunt boobu wax fa itam ay ay atte yu teqalikoo yu am solo yoo xam ni yu mat a xam la ci jàng alxuraan ak anam yi ñu koy defee wàllu xalaat itam sëñ bi indi na ca bunt maanaam fi ne nit ki mën ngaa bañ a def genn jaamu yàlla waaye toog gi ngay toog sa xel nga di ko jëmale ci sunu borom ak ci yonente bi ak ci sëriñ bi ak ci lislaam ji ak lu neex yàlla rek loolu fi ne ak jaamu yàlla la te loolu léeg-léeg nga jëlee ci loo xam ni mooy ëpp doole jaamu yàlla yu bari yoo doon def ndax dafa wax ne maarifa billahi ci fikr rek lañ koy amee dikr mooy maye unsu billahi loolu la suñu ba wax te wax ne imaam al-Ghazali moo ko waxoon wax ne itam wenn wenn waxtu woo toog xalaat ci ci sunu borom nee na waxtu moo kawe at moo xam da nga koo def da nga koo def ci jaamu yàlla wala xalaat lu lu diis la lu rëy la loolu ba tey sëñ bi wax na ci lu baree bari wax ñu itam ci yan lañ war a xalaat nee na ñi nga xam ne dañuy dañuy ñu xam yàlla ñooñu ci xéewal yàlla yi da seen xalaat di gën a jëm ndax dana di gën a sob yokk yokk ñu gën a bëgg yàlla waaye ñi dëddu itam dañuy gën a xalaate ci adduna ak woyof gu mu woyof ak ñàkk gu mu ñàkk solo day tax ñu gën koy dëddu itam wax na itam mbir yu baree bari yoo xam ni kuy xalaat ca nga war a gën a jëmee sa xalaat te mooy asamaan se kawteefi suñu borom yi ci ne ak suuf si ak xéewali suñu borom yi ak tuyaaba ji nga xam ne moom lay faye ñu baax ñi ëllëg ak mbugal mi mu dégg ñi ñi nga xam ne ñoom la ñoo koy mooy ëllëg yooyu yépp nee na mat nay jëfloo xalaat nee na jihaad ji gën a rëy mooy fexe ba sa xel doo ci xalaat lu bon akub safaan nee na loolu moom ku ko mën a def xamal ne yaa ngi jihaad jihaad ji gën a rëy ci kaw suuf moo tax mu daa wax ne na nga fexe ba am yitte ju kawe te sa xalaat bul ko jëmale mukk ci lu ci ci lu naqari yàlla bul xalaat itam lu mel ne sa ñàkk goo ñàkk ndax loolu dana jural rek ay jafe-jafe ak i xalaat yeneen yeneen i mbir bul xalaat itam tooñ guñ la tooñ nee na ndax loolu it dana jural ak coxor ak xol bu taq bul xalaat itam di mébét dund gu yàgg ak yu demee noonu loolu lépp leeral na ko ci buntu boobu inna itam beneen buntu bu am solo boo xam dañ ko dundale waxtu mooy joxe ci yoonu yàlla loolu it wax na ci lu baree baree bari ne ku ñëw di la laaj moom loo man rek na nga ko ko jox te yàlla rek a tax ndax la ca ne ci njariñ yàlla rek ko xam loolu wax na ci lu baree bari wax ci sarax ak tuyaaba ji ci ne ak itam ki nga xam ne yorul lum saraxe itam bari na yoo xam ni bu ko defee mel na ne ku saraxe jéego yi ngay dox wuti jàkka ja loolu sarax yoolub sarax da nga ko ci am xidma la fekk aw tiflit wala dara ci mbedd mi itam wala luy lore nga àndale ko wala tiflit wa nga nga suur ko loolu it ba tey yoolub sarax da nga ko ci am ak buug jàkka ji ba mu set taal fi ab làmp ak yi ni demee yu sew sewaan yooyu ak digle lu baax ak tere lu bon yooyu yépp yoolub sarax da nga ko ci am loolu it ba tey wax na ci lu baree bari loo xam ne xidma la ko tudde wax itam ci ñil benn buntu ba ne ñiy def xidma moom suñu borom ëllëg du lijjanti seen mbir dañ leen laaj rek bu nee ba yomal xiyaam ba nit ñëpp nekk ci jafe-jafe dañuy woote ayna ahlul xidma ñu doon def xidma anañu ñu ne ñoo ngi nii ñooy leen kaay leen yéen ngeen dugg àjjana kenn du lijjanti seen mbir loolu yi nag kon mooy buntu maatu amaru bihil awqaat Sëriñ Tuubaa ci mujjug téere ba nag waxaat na yeneen yu ak ci waxtu wax na sa waxtu wi bul ko sànq mukk ndax waxtu mooy li ëpp solo ci li nga am amal bitaalatu wa tadyiu al umr bi geyri ma yaani fadaauhu yadur wax na ne war ngaa sàmmonteeg say waxtu ndax waxtu nee na faw nga nekk ci ñeenti mbir yi faw nga nekk ci topp yàlla boo nekkee ci topp yàlla itam am na lum laaj am na xaq yoo xam ni war nga ko sàmmonteel te mooy war nga xam ne ya topp yàlla gi tawféex la jële suñu borom defal du sa man-manu bopp te itam na nga xam ne sa jaamu yàlla gi loo ci farlu farlu itam faw moom ab manki manki nee na boo nekkee ci xéewalit war nga xam ne xéewal gi yàlla la ko jox te na nga xam ne itam yàlla moom itam maanaam ca la bàyyi ko donte jaar na nag ci ay nit ñam jaar da nga leen sant waaye yàlla ngay gën a sant ndax ca moom la bàyyi ko waaye xéewal gi itam bëgg ci yàlla ma ko joxe moom nga war a gën a def ci bëgg ci xéewalu kese gi ñaar yooyu bokkuñu am na ñoo xam ne xéewal gi moo leen di bëgg loo am ñoo xam ne yàlla ma leen fonk teral leen ba jox leen xéewal gi moom la ñu gën a bëgg ba tey bu fekkee ne yàlla dalaa nattoo ab safaan itam ak mooy wala yu ne demee nee na nga gaaw tuub te te tiit nag te xam ne def nga lu mat a tiit bul def bul nekk mukk ci lu naqar yàlla ba pare di mel ne ku bëgg ndax loolu day mel ne ñaawee teggin la itam na nga tuub te dellu ci yàlla te sant itam ndax mënoon ngaa def lu gën a rëy lii nga def te itam xéewal itam mën na cee ne ndax léeg-léeg nit ki dana nekk ci jaamu yàlla ba nar a naw jëfam suñu borom nattoo ko yenn xeeti mooy yoo xam ne ak yu seesuwaan yoo xam ne dana tax mu del si waat xam ne moom kat demagut fenn moo tax nee na itam boo nekkee ci ay tolof tolof itam muñ lañ la ci sant foofu na nga muñ te rafetal muñ nga mi ngoog loolu lépp wax na ko ci ay xaqi waxtu wi ni ñu war a sàmmanteeg moom te nee na itam na nga am yitte ci bul geesu mukk sa ginnaaw da nga dox rek dëgmal suñu borom tabaraka wa taala te di jëfandikoo ñaar mooy del njëkkanteeg waxtu wi ci jëf yi te waxtu wi si Cheikh Abdoulaye mu baax ma wax ne ne sëñ mag moom waxtu bu masaa dem bëccëg bu masaa dem day mel ne camion moo xam da ko duyu duyu duyu ba se ba mu fees ba kenn amatul loo fa dem waxtu yi sëñ bi loolu la wax ne na fexe ba di ko duy waaye itam la la weesu itam léeg-léeg de ko lëñbët di xool la ca jëgut nga di ko jéem a lijjanti sëñ Tuubaa dara wax ne ku sam ku sam xëy rafetul sam ngontu war war nga caa ji def yitte nag ba rafetal xëy mi mooy ndaw ga weesu ngontu mi nag nee na mooy boo xasee am juróom fukki at jëm kaw xamal ne yaa ngi ci ngontu moom moo tax ngontu moom yi war nga caa def yitte sëñ bi wax nañ ne bu ma saa dénkaane sax lépp lim koy jeexale day wax ne tàyyeel jërul ñàkk bànneex jërul gàcce loolu ëpp lu mu daa tëje ay waxam moo tax mu daa wax ne murid dëgg dëgg nag moom waxtoom da ciy xër fa saadiqul muridi man yanqalib bi xukmi waqtihi wala yartaqib amaamahu waqtan fa inna daaka yamnau min islaaxi ma hunaak murid du jël du am loo war a def tey ne naa xaar ba ëllëg déedéet murid waxtu wu ne lam war a def ca waxtu woowu la koy def te dara du tee mu def koy itam murid day am dogu am pas-pas ndax murid mooy koo xam da ngaa nekk jullit ba noppi di def li jullit ñi def lépp yokk ca nag am dogu dox wuti yàlla te loolu daa aaja nag pas-pas ak positif bu kawe kawe kawe ndax himma ci la sëñ bi woote sëñ bi daal wax ne yow murid bi na nga xam ne ndigal yi waxtu ne ñu ngi waxanteeg yow liñ lay wax mooy taqool ak man boo taqoo ak man da nga da nga am li nga bëgg waaye tere yi itam ñi ngi waxanteeg yow liñ lay wax mooy nang ma moytu boo ma moytuwul rek naa la dugal foo bëgg te dugg daana ay itam ne ne bu leen yàq dugub loolu bokk na ci waxam ne bu leen yàq du ba bokk leen ci yàq dugub ne yàq dugub mooy jëfandiku ba noppi xéwlu ba noppi jàllale ko reesale ko ci lu naqar yàlla ne loolu mooy yàq dugub moom mas naa jël benn bis ab bant boo xam ne dafa am tuuti posen bu ca taq mu ne gis ngeen ko lu bonit nii rek la mel de dara ëpp na ci xeeb dara ëpp na ci xeeb waaw lu bon mi ngi mel ne posen bi rek mën naa faat xam nga waa dëkk bépp moo tax sëñ bi noonu la daa wax daa wax ne zarfu makaan ak zarfu zaman gis ngeen firi na ko xëy na waxtu du du du du du ko du ko maye waaye dara wax ne na ngeen fonk na ngeen man gan ne gan mooy guddeeg bëccëg gan mooy guddeeg bëccëg nee na bu ñëwee na nga ko terale jëf ca lu baax ndax lu baax la nga cay jëf am na bërëb bu mu ca bu mu koy sotti bu mu koy yóbbu te mooy aljana bu dee safaan ba nga jëf nag safaanum aljana la la yóbbu dara wax itam na ngeen man dëkkandoo dëkkandoo mooy raqib ak atid mooy malayka yi bind say jëf na nga fex ba buñ la bindal ab safaan loolu it daana ci dénkaane lu baree baree bari loo xam ni dara wax itam ne na ngeen bu leen wóolu mukk itam seytaane bu leen wóolu mukk seytaane te na ngay fuglu suñ borom te sax ci ak bëggam yàlla na yàlla fayal nu ko ndax moom moom mooy ki gën a barkeel ak dund wen seetloo li mu bind da nga da nga jàpp ne bind rek la doon def te bokkut ak li mu doon jëfalanteeg tubaab bi bokkut ak li nga xam ne moom la moom la doon def ci jaamu yàlla nga xam ne guddi yi fi ne mësu ko nelaw moom sëñ bi sëñ bi amul mësta am lalu tëdd wala néegub tëdd mësta nelaw guddi mësta julli itam ñaari julli ci ñaar ci ci ci menn njàpp julli gune ak njàpp mboom jataay yii mu daa def rek di ci waxtaan ak mag yi lam lam lam leen di wax ci ay dénkaane ki tomb boo ko toppee da nga yaakaar lool rek la doon def moo tax kon da nga xam ne kii moom dundam moom dund gu barkeel la te jëfandikoo na waxtoom te waxtu woo itam moom jariñ na njariñ yu kenn xamul nu mu toll ñi jubee ci moom jaar ci moom jub rek kenn xamul nu mu toll te dañuy yokk ba ilaa yawmi diin kon kooku ku ànd ak moom yaakaar ko sa waxtoom doo ko sànk mukk te di nga fonk waxtu te di nga fex ba di ko dundal ci lu am njariñ doo ngi jéglu bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu